nuy ne leen bu baax di leen ziar yéen ñi safoo Dakar Buzz TV comme niñ leen ko amaloon démb rek li nga xam ne moo xew fii ci pikin di Fisco ñàkk bakkanam fële ci arène nationale ñu toog nag kenn ci koo xamante ne moom fekkee ne fee yi ànd naag moom yóbbu ko hôpital topp na autopsie bi topp na lépp donc moom mën nañu leeralal bu baax mbir yi naka la demee ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw salaamaaleykum Dakar Buzz maa ngi leen nuyu di rafetlu seen ñëw fii Fisco suñu raq di rek hôpital ñu ngi toog maak moom di ay 10 mètres ba incident bi amee si lañ ñu woo téléphone nañu Fisco la moom at suñu beneen raq bu ñuy wax Mori parce que Phénicienne bi ñu ñu ñun ñu tiimoon ci kaw ñoom ñoo sànni Phénicienne bi euh, j'espère que mu juumut supporter bu mbër boobu dëkk côté Samsam bi lañu wax waa Baba Jaxal parce que ñoom ñoo yoon asiko yi tiim ñu doon tëgg suñu ginnaaw te Phénicienne bi foofu la jógee. dem parce que ñoom ñu ngi nekkoon suñu ginnaaw fa la jóge ñëw bi mu ñëwee romb booy bi moo ci bopp bi ñëw fisco fi ren fii la ko jël ci put bi la dugg ba sori wax euh, Pape Sarr bi ak yeneen gars yi si nekkoon ñoom sax ñoo ko dumbali dindi affaire bi ba fay affaire yi parce que mu doon lu affaire boo xam ne lu metti la mais man li ma si gën a naqarlu mooy parce que ba affaire bi amee man ba ñu wooyee ba ñu wootee si téléphone am wax Pape Sarr bi moo ma bi ma wuyoo ma ne ko ana booy bi parce que avant may génn si stade bi ñu dendoon ak moom ne nañ ma booy bi dee na man leen non booy bi deewut ñu ne ma non si booy bi dee na si la ñu woote téléphone am ma ma jot wax Pape Sarr bi ma laaj ko mais boobu peut-être mënu ma wax lu bari parce que nu mu nekkee suñu raq wala dara mu ne ma rek non mi ngi si jaam ma ne ndaxam mi ngi nooyi mu ne médecin yi ñi ngi def lu ñu mën ma ne ko non nga wax ma li si am si la ma jox sappo bi sappo bi ne ma non xaar ñu arène nationale ñi ngi ñëw. wala nga wool papa mu ñëw ma ne ko bu dee dafa urgent ñu koy yóbbu hôpital pour faj ko wala dara xaar ñëw taxaw ko ba papaam ñëw parce que papaam dafa sori parce que papaam dafa amoon beneen dëj Fass Mbao léegi nag bi ma ko waxee loolu mu ne ma non xaama arène national insisté maam am benn kilifa bu ma jox numéro téléphone am ma woo ko ne ko wool sapeurs yi nga laaj ko parce que mu wax ñu lu leer mais kii waxuñu lu leer quoi xaama arène nationale la ma wax te Fisco mi ngi nekk danger ku ko woo ma ma kii tamit waxuma lu leer ba tey. si laa ñëw nag sappo bi ma ñëw saat fekk ko fa bi ma ñëwee bi ñu taxawee maag moom mu taxaw insisté suñu benn gamaa bu ñu àndoon bu ñuy wax aas kan insisté si kawam ne wax ñu lu am ñu xam lu xew lan la mais bul ñu teel suñu wax di ñu ko nëbb si la ñu xamal foofu nañu non Fisco dee na quoi ma laaj ko kañ la dee at bon moment la dee mu ne ma moment bi ñuy jéggi APS bi net ci moment boobu noonu la dee bi mu waxee loolu ma ne ko léegi anamu mu ne ma ñu ngi police Pikine si ñëw si laa dem police Pikine fekk fa bi fekk fa lépp ba ma ñëwee ma gis ko si oto sapeurs yëpp. ma yi ñoo ko yóbbu police bañ demee Camp Thiaroye lañ dem sapeurs yi biñ demee Camp Thiaroye ci yoon bi fekk décédé na léegi ñu ñëw police pour def constat pour mun ko yóbbu biñ demee police Pikine maag booy ñoo ànd fekk leen fa at papaam ak papaam at papaam parce que papaam man maa ko woo téléphone na ko ñëwal bi mu ñëwee tamit sapeurs yi wax ko ko mais papaam boobu parce que doom at waajuram nu ñu mel mënul maîtriser boppam après paa bi dem ñu ne ko ndarem ñun ñu régler li si des si lañ ànd ak moom dem jóge police dem euh, Dantec bi ñu demee Dantec ñu ne def fees ñu dem Fann bi ñu demee Fann ñu jël ko démb lañ def autopsie bi démb CTO lañ ko defee CTO ay vingt lañ fa jógee si guddi après CTO lañ ko defee ñu jël ko CTO delloowaat ko Fann ñun tey jii sax ñu ngi doog a ñëwaat nii nekk ci affaire yi di wax affaire metti métti na trop mais li ma gën a naqari mooy parce que sapeurs bi ma ñëwee man maa ko laaj ne ko est-ce que rencontre nga ñi nekkoon stade ndax ñoom yëg nañ ne kii dee na wala deewut mu ne ma ñi ko woon ñëpp si stade bi yëg nañ ko moom moo ma wax loolu ne ma ñi ko woon yëg yëg nañ ko ba benn policier bi ne woon police bi ki egg parce que nit warul dee si manifestation muy egg mais li ma gën a naqari mooy police. zemi bu ñuy ñëw am nañu chef bu ñuy àndal mais chef bi mënu ma yow nga si nga nga jiite dara ay nit nekk ñu mu am bu fa am ñëpp gis ko yow say say say say say élément nekkoon si incident bi jëloo leen pour vendre leen pour ñu rendre le compte li xew lan la nga ñëw police li jëndi ko wala dara wala nga xool ful bi def lool lan la mais defuñu ko fi ñu toog lañ toog ñoom jàpp seen ñaam mel ne dara xewut ñuy eggali seen làmm te bu dëgg neexee yàlla bu ñu ko waxee bu doon keneen tey moo ko keneen koo xam dafa organiser taalibeem wala dara nit dee fa non kooku ki ko organisé dañ koy téye pour xam li xew lan la mais ci yoon bu doon ci dëgg yoon la ñuy dox président CNG dañ ko war a woo woo ki jiite police bi fa nekkoon woo promoteur bi pour ñu xam constaté li xew lan la parce que ñun fas yéene wu ñu bàyyi Fisco suñu raq la du du du nit boo xam ne dañ koy ñëw pour rey ko nii rek mu yomb quoi parce que nit boo xam ne sàccut fenut agressé wut suy dem làmb day silwisey correct fii ñëpp ko jox cër parce que ni mu mel moo tax mais ñun du ñu dàqoor ñu rey suñu raq du CNG soxla ñu seen ndimbal puisque bu doon xaalis moo koy faj du dee. parce que dañoo dégg ci ay information que ni moom moo yoroon sax li nga xam ne moom moo ko rey donc demeewul noonu. non Fisco xaaju bay yor loolu man fi ma toogoon booy ma tiim ci sama ginnaaw si kaw ñoom ñoo yoroon Finisène bi moom xamul sax nu ñuy xëccee Finisène ba yor pétale moom moo toogoon a suñu raq bu ñuy wax mooy ñun bi ma ñëwee stade fekk ko. moom moo ne ma sax demal fee fee sagul ngeen dem toog fee mais xaajut ba yog loolu moom affaire bi muy ñëw sa dafa beet parce que mu la romb ñëw ci Fisco mais yóbbu ko mais police loolu bi mu amee la moo tax ñoom jóguñu ànd ak sappo bi constaté affaire bi xool li xew lan la mais ñoom ñëpp fa lañ toog jàpp seen ñaam sappo bi donc ñoo ñëw taxaw fa amul kenn ku fa ñëw si ñoom ba démb ñun bi ñu nekkee hôpital ak lépp du benn police bu fa ñëw wala dara bu jéem def enquête wala lenn. tey ñaanu ma ko yàlla bu doon tey benn ministre moo toog foofu pétale bi dem ci moom même bu koy fayu ko bu daat bu taalee yërëm rek dañ koy régler ñoom sur la coup mais pour quelle raison ñoom ñu bëgg a jàpp booy bi ñun soxlawuñu seen ndimbal ñun ñaanuñu kenn ndimbal parce que fisco am nañu ko taxaw ay mboqam ñu ngi koy taxaw ay xaritam ñu ngi koy taxaw bu doon xaalis moo koy dundal du dee soxlawuñu seen ndimbal ñaanuñu kenn ndimbal mais li gën a rafet mooy nit boo amee boo organiser dara am nit bu fa dee au moins nga dox sa tànk sax ñëw ba ci kër gi procureur jéem a def enquête xool li rey booy bi lan la mais ñoom ñëpp ñuy toog jàpp seen njàmbur CNG ñun Pikine lañ dëkk fii la ñuy réunion yi ñoom chaque lundi non ñëwuñu si kër gi chaque lundi fii la ñuy réunion yi ñoom lii buñ ko lijjantiwul dinañ bëgg a réunion fii mu tëleen waxuma la làmb de làmb ñu ngi leen xaar mais ñoom réunion sax duñ ko fi defeeti tant que cas bi ñoom réglé wuñu ko ñu xam lan la parce que ki rey booy bi ñoom ñëpp war nañ ko identifier parce que stade bi am na ay caméra am na yeneen journaliste fa nekkoon te ñoom ñi police bi ñuy toog jàkkaarloog ful bi fii nii ne làmb dañ koy dama ngay wax dëgg parce que mënuñoo jël par exemple cinq 5000 personnes si stade indi fa 200 zemi wala 100 zemi lamb keroog amul sécurité man maa ngi fa woon amul sécurité fii benn promoteur moo fi tëgg làmb defalu ma dara ci àdduna musuma kaa gis Gaston meeg moo fi tëgg ni ñi dem seetaan si jàmm ñibbi si jàmm parce que da ngay gis lu alentour stade bi yëpp da ngay def ay sécurité ba mu doy. mais CNG li comme li Pape Sarr wax démb dëgg rafet na dëgg la CNG la moo tax promoteur bu jëlee ay semis ñoom mënuñoo jël ay semis mais mbër yi buñ ñoom yàqamtiwuñu lu dagg xaalisu mbër yi ñuy luyee stade bi def lu ne tey jii ñuy rey ay doomu jaamu ñoom ñu toog jàpp seen ñaamu nële du ñu xëy suba si lu ñuy njëkkër yi ñoom mooy mais Papa Sow xaaj nañ ko fi làmb eegut kii Alioune Seye jamuñu ko fi làmb ji est-ce yegg na même bu dee jour boobu ñoom ñooy acteurs yi mais leen làmb yi mënoon na egg. mais yéen làmb yëpp lañ arrêté mais léegi nit dee si stade bi ñoom ñu nëf nëfal ko pour seen organisation bañ a yàqu léegi ba kooku dem léegi ñoom ñëpp ñu croisé la waa jàpp seen ñaam yaakaar day yomb du yomb. di ngeen demee police amul promoteur wala képp koo xam ne rek nekkoon nga mbar jour boobu nga doon bëre ku ñëw ci ci police. ba ñu nee la ku dul sapeurs yi gisuñu leen fa bu dee mbëri ñu dëkkal na wax dëgg yàlla dem muy Ama muy Boy ba sook sànq gisante nañ ñoom ñëpp. woo nañ ñu pour ñëw fi Eumeu Sène woo na Pape Sarr parce que man yow mooy contact mais woo na Pape Sarr wax dëgg yàlla ñoom ñu ñu dëkkal ñoom pere nañ pour ñëw fi parce que ñoom sax ñu ma ne ma suba lañ fi bëgg ñëw at bu ñuy def levée de corps bi samedi ñoom tamit dinañ ñëw àndaale si parce que seen wàq la parce que ñoom ñooñu ñëpp xam nañ ko Pisco Ama xam na ko Boy Niang xam na ko Eumeu Sène xam na ñoom ñëpp xam nañ ko yàgg na si ñoom mais ñu lu ñuy naqarlu mooy la moo tax police bi taxaw di seetaan ba tey amul benn réaction bu ñu def depuis stade ba tey la moo tax loolu ñu looloo ñu naqari ñun lool bu ñu defee suñu dëj ba pare incha allah rabi dinañ organiser suñu marche si buntu stade bi tant que booy bi lii leerul ñoom CNG laa la wax duñ fi si ñooti. kon daal bu ñu déggee sa wax d'après autopsie bi lu mu génnee booy bi affaire bi ko rey dañ ko koo sànni. affaire bi moo ko rey te médecin bi ci boppam am na beneen affaire bi ci boppam des na si biir ba médecin bi da ko génne kayit yi mi ngi nii yëpp a ngi nii yëpp ngi nii kayit yëpp a ngi nii. mi ngi nii kayit yëpp ngi nii yëpp ñu ngi nii médecin bi si boppam bi mu ñëwee ba mu gisee affaire bi dafa tiit médecin bi doon def autopsie bi démb ñoo nekkoon maak moom at booy bi mu ñëwee laaj na ma ñett yoon ne ma mi ngi est-ce que lii pétale kese la léegi ñu bëgg a baay noonu zemi yi booy dugg estaat sa parfum bu ñu ko gisee dañ koy nangu cigarette dañ koy nangu ndox dañ koy nangu léegi caabi dañ ko bong dañ koy nangu wala ñoom yooyu moo leen amal njariñ ñoom pour ñu ko seen camp pétali booy yow ñu bàyyi la ñu dugg si biir nit ñi pour ay nit ñi pour lan loolu. léegi bëgg yoon def teg loxo ki nga xamante ne moom moo ko jëf-jëf ñun loolu lañ solo soxlawuñu dara dañoo bëgg yoon def liggéeyam def enquête bi mu leer ñu xam ki ka kan la parce que nit bu ñëw stade ku ne dangay ngay correct mais yow stade ñëw stade di jël ay pétale di ko sànni ay n'importe koo xam ne mooy loolu soutien de famille koo xam ne xamul dara puisque jàmbaar la nit bu nangoo liggéey. nit bu am sutura nit buy góorgóorlu ci àddunaam fii àdduna kenn ku ne am nga ku lay support wala ku lay teg loxo Fisco doomu aadama du ne maa koy support wala maa koy teg loxo lu mu am moo ko may boppam nekk jàmbaar kon ñu looloo tax ñu tax man c'est la première fois ma wax si site wala moo wax ci tele parce que dama am lu ma naqari parce que dëkk bi dañuy def ku ma am ndey ak ku ma amul ndey ñun nag am nañ ay xale lañ te ba ñu si dara ñoom lii day leer wala ñoom fii du jàmb du fi am CNG du fi du fi viñoo promoteur bi la moo tax jëli wuñu ko jëli président CNG jëli ki jiite woon zemi ñoom ñëpp dem seen yoon benn waaye ne zem benn zemi dong la doon xeexal mi ngi ne la tribunal la ñu yóbbu ko ñoom jàpp ko yóbbu te benn zemi la doon doon moo doon dóor raxam waa ji ànd ak soq la benn zemi doon dóor raxam mu mu koy àtte mu meef mu jugi bëmax zemi bi mi bëmax dong la ko def mi ngi ne ñu yóbbu tribunal si jour combat mi ngi leen yóbbu tribunal ko ñoom leen soxal rek lañ xam xamuñu li soxal bi yeneen nit ñi ñun nag am nañ suñu jot am nañ suñu tànk te ñun bu ñu paree suñu dëj bu neexee yàlla lundi nañ def suñu mars bu neexee yàlla nañ woo sit yëpp ñoom fii duñ fi lii ñooti làmb sax du fi am waxuma laa di ñëw tànk leeru bañ ñu si dara te jeune jeune gox bi yëpp pare nañ pour jóg pour jàppale ñu si lool parce que ñoom ñëpp Fisco seen xarit la fi la juddoo fi la yow fi la màggee bu doon seeni doom ñoom ñu lijjanti ko wala mu doon doomu procureur wala mu doon doomu commissaire wala doomu président CNG ñu lijjanti ko mais Fisco du inconnu Sénégal la mi ngi nii. suñu frère la bañ ñu si dara loolu laa amoon lu may wax wasalaam. am internet Dakarbuzz TV ñoo déggandoo kàddu yooyu gannaaw ba mu ñu leeralee bu baax li nga xamante ni <clears throat> moo faat kooku di Fisco nee na kat luñ ko sànni la donc am na ku ko rey te mu ngi ñaan ñu yoon def liggéeyam ba ñu teg loxo kooku nga xamante ne moom moo ko def loolu sinon rek dinañ amal seen ay manifestation ba keroog ñu ci am lu leen leer merci beaucoup lii lañ leen indiloon à travers Dakarbuzz.